assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ixwat al imaani wal maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan suñu boroom subhaanahu wa li nuyoo ëmb muy jàmm ak mucc ci wàll yépp ak yërmande bu bàyyi ci suñu boroom lamb ñu ñun ñépp ak barke bu bàyyikoo ci suñu boroom lamb suñu dund lamb sunuy fan lamb sunu njaboot lamb sunu wërsëg lamb suñu pas-pas yàlla nañ ko yàlla boole defal ñun ñépp mbokk yi di ànd ak yéen di taxaw ci buntu suñu borom subhanahu wa taala de feddali sunu njaam muy maqaam bi gën a kawe ci maqaamaat yi nga xam ne góoru yàlla yi danañu ci jaar ba taxaw ca maqaamaat yi wal axwaal fal maqaamaatu wal axwaal bokkuñu fal maqaamaatu kasbiyatun wal axwaalu wahbiya ñu ngi ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu defalal ñu ñaari yépp maqaamul ubudiyati mooy maqaam bi gën a kawe nit ki yëg ne jaam la bindul boppam dafa am sang bu baax bu tedd bu kawe bu xam bu man sang boo xam ne mooy yilif lépp xam lépp laa yaxzubu anhu mithqaalu darra fi lsamawati wala fi l ard wala asgara min dalik wala akbar darra génnul yàlla darra umpul yàlla na nangu nag sag njaam nangul ko rububiyatoom ak uluhiyatoom maqaam gënu ko kawe kon mbokk yi maa ngi ànd ak yéen ñun ñépp ñu yeesal sunu njaam ci kanamu suñ boroom di ñaan mu jéggal ñu sunuy rëcc-rëcc ak bari di ñaan mu jëggal ñu sunuy bàkkaar ak bari du ñaan mu fóotal ñu sunuy taq-taq ak bari aasaat yéeg moo xam ci làmmiñ la bàyyi ko ci bët walla ci nopp wala ci loxo walla ci biir wala ci tànk ak fu mu mën a bàyyi ko yaa rab yaa arhamar raahimiina yaa rabbal aalamiin ñi ngi taxaw ci sa bunt di yeesal sunu njaam ak suñu lot nga xam lépp lépp nga teg ci sa bët suturaal ñu sutura boobu yàlla na sax yàlla na nga ñu fi bàyyi ay at yu yàgg ñu bokk ci sa jaam yi nga xam ne danañu la weetal danañu la jaamu te jaamu ga itam danañu ko sellal bakkan du ca am yoon bànneex du ca am yoon ngistal du ca am yoon ndéggatal du ca am yoon lépp dañ koy def ngir sa jëmm lu ca dugg te bokk ca nar koo kooj yow suñu boroom subhaanahu wa yàlla nag ñu ko simpil wa ma umiru illa li yacbudu llaha muxlisina lahu diina xunafa wa yuqimu salaata wa yuutu zaka wa dalika diinul qayima yal nañ yàlla boole min ibaadihi almuxlisin almuxlasin ñi nga xam ne seen jëf yi sell na min jamii shawaib yal nañ ci yàlla boole mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di fedd li ko lëre di leen baalu xaq di ñaan suñu borom mu boole jéggal yàlla bu ñu toppante xaq gëje bi su amee itam na leen wóor ne xat-xati jamono moo koy indi yenn saay waaye suñu xol suñu ruux suñu xel suñu jëmm yépp mu ngi ànd ak yéen fii kulli waqtin waxiin ñu ngi ànd ak yéen ci seeni mbégte di ñaan yàlla yàlla na sax di ànd ak yéen ci tiis yi nga xam ne mook àdduna ànd feebar ak wéradeeg génn àddunaak xat-xati jamonoog yépp ñu ngi koy seddoo ak yeen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp mu defal ñu ko muy ak yokkute ak yéeg laabal ñu ci itam lépp loo xam ne taq na ci ñun te bokku ci ba bu ëllëgee bu ñuy teeri ca kanamam dana fekk ñu set wicc yàlla nañ ko yàlla boole defal mbokk yi ñi ngi ànd ak yéen ba tey ci nafar bi ñuy nafar suñu wàllu diine génn guñ suuratu ba yàgg nañ ci audio bi passé ñi ngi waxtaane woon ghazwatu Hunayn ban at la am fan la amee woon lan moo ko waraloon lan lañ ca mën a jële kum bind ci sunu dundu àdduna ci sunu digganteeg sunuy kilifa ba bu ëllëgee ndam mën a am jamono bu ñu juuyoo ak sunuy kilifa na saxaaba yi juuyoo woon ak ndigalal alayhi salaatu wassalaam ci xaswatu uxud ba tax mu dal leen fii ci xaswatu xunayn yëg gu ñu yëg seen bopp seen mbooloo nax leen ba ñu yaakaar ne war nañoo am ndam bëgg caa génne loxol yàlla gis ngeen la ci mujj mujj na àdduna xat ci ñoom ñu wane ginnaaw daw waaye na kilifa gu tedd ga nga xam ne mooy sayyidul awwalina wal axirin alayhi salaatu wassalaam fa mu taxaw jógu fa ma ngay avancé nan leen ñëw leen maa ngi nii ana nabiyu laa kadib ana bnu abdil muttalib yàlla may ko sakina yàlla jàppale ko in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdaamakum yàlla boole ko ay soldaar yoo xam ne bët du leen teg bët du leen gis wa anzala junuudan lam tarawha foofu ñu toll woon ngeen baal ñu xaq dañoo bëgg a dellu gannaaw ci ndaw loo xam ne waxtaane woon nañ ko ci audio yi passé woon muy ndaw loo xam ne dafa juddu rekk baax waxtaane woon nañ biographem ak way juram muy diggante Umayr ibnu Saad ak Jullaas ak lañ ca mënoon a jànge ci xale bu ndaw bu toll ci at yooyu am position yu leere noonu ci pas-pas yàlla musal ko ci nifaq ba tax na bàyyi taxam boobu wala jiit leen boobu mujj na saa bu ñu tuddee umayr mun a jazaahu llahu anni xayra faqad anqadani min al wa aataqa raqabati min an yàlla ma ko yàlla fayal moo ma sobe ci kéeféer moo ma goreel itam ci safara ba ñuy tëj audio bu mujj ba waxoon nañ leen ne leen فليست هذه الصورة أوضأ صورة في حياة الغلام الصحابي الجليل سيدنا عمير بن سعد ولا أشدها تألقا وإنما في حياته من الصور ما هو أزهى وأجمل waxoon nañ leen ne leen lii ñu indi ci biographie saxaabi bu ndaw bii di Umayr ibn Saad nekkul ne mooy foto bi gën a marqué ci dundam am na yeneen image yoo xam ne bëgg nañ ci ànd ak yéen mbokk yi ngeen baal ñu ñu déglu ko bu baax a baax a baax di ñaan suñu boroom subhanahu wa taala mu boole ñu nangul nga xam ne tere nekk ndaw du tere baax du tere xam sa bopp du teree xam itam responsabilité yi nga xam ne yi lay xaar loolu moo tax mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen ci beneen daje boo xam ne Umayr ibnu Saad radiyallahu anhu dalika alxulaam alsaxaabiyu aljalil taxaw na ko ci biir penc mi ba Seydina Umar ibnu alxataab radiyallahu anhu seedeel ko seede bu rëy bii may bëgg a wax mu ne la kam wadittu anna li rijalan mithla umayr ibni saad li astaciina bihim fi acmaali almuslimin wax bu rëy la te yéen ñépp xam ngeen kan mooy sayduna omar ibnul xataab sayduna omar sayduna omar ibnul xataab sayduna omar ibnul xataab xam ngeen mooy kan ban wësmu la am ci diine lislaam kàddoom ban poids la am ngëm-ngëmam ban poids la am taxawaayam ci maandute bu fekkente ne bii seyduna abu bakar radiallahu anhu moo jël drapeau wu ngëm seyduna omar moo jël drapeau wu maandu seyduna aliyun jël drapeau wu xam-xam seyduna uthman jël drapeau wu kersa ñeent yooyu yépp nag fa tilka tilka sifaatul arbaatu kulluha kaanat mujtamiatan fi shaxsiyati saydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ne bii ñii dañoo jël lii ñii jël lii ñii jël lii moom saydina umar saydina muhammad alayhi salaatu wassalaam moo jëloon ñeent yépp ku toll ni Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu bu demee ba seede lii ma wax ne la kam wadittu anna lii rijaalan mithla Umayr ibni Saad li astaciina bihim fi acmaali lmuslimiin maa ngi doon ngéeju bëggoon naa lool doon na ma bëgg lool ma am ñu taxaw ci sama wet di ma jàppale ci lii may gouverner ay nit yu mel ne Umayr ibn Saad xale bu ndaw bi ñu ne ko lu tax mu ne li astaina bihim fi amalil muslimin ndax ma mën a dimbandikoo ci ñoom ci mën a gouverner mën a gérer affaire yi nga xam ne bii dafa làmbu mbirum jullit ñi bi ko yàlla fale mu nekk xalif responsabilité yépp nekk ci kawam mu war a gérer war a doxal wàllu diine wàllu armée bi état islamique war a gën a yaatu njub war a gën a am wulaati yi xudaat ku ci nekk fañ la teg nga war faa doxal njub Seydina Omar daf doon tànn ku ci nekk fan la lay teg la nga yoyoog mu jox la ko waaye daal xelam dal lool ci Umayr ibn Saad mii nga xam ne waxtaane woon nañ ko ci audio yële passé ki mu ci opté daal tànn mu ne daal bu sañoon ñi muy fal ñëpp dana mel danañ mel ne Umayr ibn Saad ndax mu mën a sukkandiku ci ñoom mën a dimbandiku ci ñoom pour gérer mbirum penc mi ak mbirum société bi kon yaakaar naa ne wax kaddu yi Seydina Omar ibn Xattaab wax jëme ko ci saxaabi bu ndaw bii di Umayr ibnu Saad kàddu yu rëy la bàyyi ko ci kilifa gu toll noonu ak li mu représenté ci lislaam ci njub ak maandu ak dëggu ba mbedd mu mu jaar seytaane du fa jaar xam ngeen ni mbokk yooyu kàddu am na poids bu neexee la incha allahu tabaraka wa taala danañ ci ànd ak yéen jéem koo farañ fànce ndax ñu mën koo jariñoo ci biir penc mi moo xam ci kadru daayira yi la moo xam ci cadre association yi la moo xam ci cadre syndicat yi la moo xam ci cadre parti politique yi la moo xam ci biir jumaa yi la moo xam ci biir jàkk yi la moo xam ci biir quartier yi la moo xam moo xam fépp fu mbootaay am am ko war a taxaw ca kanam war a nekk ca kanam di doxal melo ya nga war a mel qualité ya nga war a ràngool ci jubal ak maandute ak mbaax loolu lañu Seydina Omar bëgg a jàngal ci biographie saxaabi bu ndaw bi di Umayr ibnu Saad ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu tawfiq may ñu dégg ak topp bu neexee yàlla ci fen yii di ñëw danañu dugg ci dërsa bi dëgg-dëgg ba ñu xam kan mooy Umayr ibnu Saad ci beneen côté bokkul la côté bu njëkk ba bale donte ñoom ñaar tàqli ko mbokk yi ngeen baal ñu xaq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fa ila liqaayin aaxar